waaleykum salaam haj Babacar ñu ngi lay ziar ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak Adji Sarr ci mbiram ak Ousmane Sonko bu njëkk mu ciy janoog taskatu xibaar yi démb la mu ca wax mooy firnde ci ne jote na ak sañ Sonko ca bu ñu bëggee mu ñoddiwaat plainte bi mu ne ne Ousmane Sonko jàpp waat ci alxuraanul karim ne li mu wax du lu ne ci wàll woowu ba tey ji opposition bi di ci wéy di daje ak moom Ousmane Sonko démb Alaaji Malick Gakou la ñu gis mooy dañuy bëgg na saxal démocratie fii ci miim réew moo waral moom Alaaji Malick Gakou ne jotna ñu euh, plan syndicat autonome enseignant moyen secondaire Sénégal ñaawlu ay avancement du intégration ci ay waral fonction publique ak euh, syndicat euh, secteur éducation di janoog taskatu xibaar yi tey ci suba yokkute ci matériel yi dem ci wàllum tabax fii ci mim réew ciment beeg fer bi rawatina junni moo ñëw tegu ca tonne bu ca ne ci simon bi waa Mbàkke nag ñi cay jëfandikoo ciment boobee mer ba futt du lu jaadu ci réew moo xamante ni daanaka ay usines yi ciment mu ngi fi te bu nu sañoon jiitu réew mi wut ca pexe jàmmi Casamance ak initiative bu fa ñu bari ci acteur taxawal bokk na ca téere bu nu ca génne euh, ci tëralin duppe ko livre de la ngir ni ko waxee jàmm ji ci bët saalumu sunum réew ci technique bi Abdou Thiam Assane ni nu ko waxee mbiri Ousmane Sonko Adji Sarr moom soxna Adji Sarr démb bu njëkk muy janook taskatu xibaar yi la mu ci dikkaat rek mooy anam yi nga xamante ni noonee la jotee ak moom Ousmane Sonko mu ne te it bu nu bëggee ak ñot di ñeel plainte bi faw usman Sonko waat ci alxuraanul karim lenn ci kàddoom Adji Sarr ñu teewlu ko Hadj Ndeti Diop mosuma toog ak Ousmane sonk di ko wax lu jëm ci sama vie mosuñu toog sax di am ay yenn paroles yoo xamante ne day jëm ci man say kese la say ak man bu fekkee ne mosul say moom nawaat na jàpp ba set teg kaamin waat bu fekkee ne mosul seq ak man waxatuma sax nañ lu bëri loo xamante ne ñëpp a ngi naan viol viol répété sax nañ loo xamante ne man mii sax jàpp ma ko. mais bu fekkee ne ëpp loolu waaye bu fekkee ne mosul say ak man na waat teg kaamin jàpp bés bu ko defee man dinaa retirer sans te lu ma ci góobee ma gar ko mais ta foog naa ne instant bi ñu toll Sénégal ton na si moment boo xamante ne ay moor xas na ba am comme noonu nuñ koy waxee il faut que bi feeñ. dëgg googee le maire bu euh, Kaffrine euh, soxla Abdoulaye Wilane ca mu ne kenn mënuñ cee dimbali lu may justice bu Sénégal lu ko mooy dal ak jàmm du fi mësaam ci réew mi ñu déglu ko monsieur le maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane ak Oumar Ndiaye. faw tuuti làmbaay ñaaw ci xew yi fi jot a jaar ci fan yi la ñu génn waaye ndax mu sedd mu cee ruus. ndax taxawaayu kilifa diine yi moo di gis-gisu député maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane li ñëpp doon ragal xaw dañoo xeeb xel ba mu bëgg lakk dagg jotee bu am ci diggante janax ak si ndax lay niru ñu di ko awte awtee ka ëcc ba mu nekk loo xam ne ba naroon naa këpp gaal ànd ak borom gaal gi ak ñi ci gaal gi yëpp nërmeelu lii fi xew fan yi di niroog ndax dal na giif na waaye bu safara dàbbee ci dàgga ba mu sël-sëli ñu fay ko ngelaw li ne teg ku foog ne ca ron dàgga ja xamut xal wuy suus mel ni xalu ndéef mën ngay nax sa bopp moom député maire bi di xam ne ne jot na nag ñu xam fu dëgg féete bu dee bëgg nañ jàmm sax ci réew mi amul jàmm jeex na bu dëgg amul jàmm jeex na bu dee Sénégal réew indépendant la démocratie la li xew diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ku tooñ ci ñoom ñaar Sénégal war na koo xam yoon dal sa kaw su amut kenn xamut fu ñu jëmal la ku wal mburut du dëkk ndax jàpp na ne yoon war naa leeral ñi faat bakkan ak ñi jot a ronqi bagaas yi jàmbur lu mosta am ci réew su amee ci réew yéeme nii dañ ko war a leeral suñ ko defut ëllëg ku jëm bu ëllëgatee ñoxoor njaay di toj sa kër nangu sa alal nangu sa jabar ak sa mu toll nii li xew nag jot naa am ab jàngat bu rëy ci réew mi ndax jàpp na ne du kenn ku may ñooñ politique ñi bëggoon a suruxal Sénégal ci guuta parce que ñun waruñoo mujjee puso bi mu réer gannaaw indépendance kon nag ñun ñi politique na leer ñëpp ne àggoon nañ ba bëgg a dugal Sénégal ci guuta ñàkk a mën a laamisloo ak mën a waxtaan su ñàkk nangu dëgg ak ak ak yelleefi keneen Kaffrine Omar Ndiaye RFM jërëjëf Omar mbiri aji saax Ousmane Sonko ba tey ak gis-gis bi ci soxna yu majorité présidentielle gi am ñoom danoo ni mooy ak jàmm ak dal la wàllu viol sif jigéen crime la fi ci Sénégal dañu ciy déglu euh, kenn ci ñom aji mbex gan Kanouté ñu tewlu ko. képp ku siif xale wala nga siif jigéen loi bi dafay daan sa kaw ñu jëlee ko ci délit def ko crime crime mooy loo xam ne tey euh, loi bi di nga tëdd lu mat fukk ba ñaar fukk at wala bu nekkee da ngaa siif siif siif ku jigéen wala xale euh, mu ànd ak rey perte bakkan mën nga tëdd sa guuru dund kon loolu loi boo xam ne la ñun jigéen ñi ñoo ko xeex assemblée national ñu voté ko à l'unanimité ñu voté ko le 30 décembre bi nga xam ne euh, moom moo moom moo jàll 2020 ñu wax tamit que ne ñun jigéeni Benno Bokk ak majorité présidentielle li fi xew ñun ñëpp xam ne affaire privée affaire civile la affaire pénale la muy loo xam ne ci ñaari doomu Sénégal ci la xewee ñaari Sénégal ñoo xam yoon Nous ak yelleef ñoom la yemale kon tey ñu jàpp ne ñu jàpp ne ñun ñëpp li ñu war soxal mooy euh, ñu liggéey nekk jaamu dëgg ñu servir la vérité Nous ko ñun ñëpp Nous ku ci nekk dañu war a ki ñi nga xam Nous ñooy justice ba nga xam ñu xam la dëgg bi que ñu sommes également ñun jigéeni Benno Bokk nous ak une grande majorité présidentielle nous, nañu ne fii ci Sénégal dafa am lu ñuy séparation des pouvoirs

xalaati askanu Sénégal ca loolee li war rek moy opposition bu benno ngir jëflante nguur gu Macky Sall El Hadj Malick Gakou ñu teewlu ko Pape Balla Gueye li fi am amatul fenn ci àdduna mooy raw gàddu raw gàddu nag tant mi ngi am Sénégal te dindi wuñ ko ci code électoral ku jëkki buñu andul nek nekk benn bokk ndey bokk bay duñu ñu mës lol motax non seulement dañu wara xex pour que raw gàddu bobu deñ parce que raw gàddu bobu limay muy dindi mooy dina fexé ba parce que fa grand parti nga xam ne ñoo bokk ay valeur mën and waaye bu daw gàddu bi dañul dañuy def rek ànd doo supp kànja te supp kànja nag day am lépp day am ay yax aussi te loolu baaxul pour Sénégal du leeral yoonu Sénégal te loolu mooy andi après de accession du pouvoir li nga xam ne moo fi am tey jii mooy li nga xam ne mooy naqarlu mooy nguur nguuru président Macky Sall te nguur gi pour ñu jële ko fi il faut que sénégalais yi xam ne il faut que kuje gi boole seen doole loolu moo tax may wax ne ginnaaw bi ñu dundee expérience manko wattu Sénégal ngir yàlla opposition bi nañu fexe ba

wóor syndicat autonome jàngalekat moyen secondaire Sénégal SAEMS ñoo yëglu akuk mer ndax boobaak léegi ñu ne ay weer du avancement du intégration ci ñoom seen i liggéeykat moo waral euh, secrétaire général syndicat bi ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam du lu nuy nangu te it rafetlu wunu ca liggéeyu ministre bi ñu dénk wàllu fonction publique Saourou seen ñu ànd ak moom ak Pabal Guèye. li ñu gis rek mooy loo xam lu jafe la parce que nag agent de l'État bogus, mais carrière am la am tey constat vous def moy fonction publique l'inter administrative yoyu nga xamné document documents yi signature yi liñu wara avancées, def pour nit ñi avancer wala ñu intégrer leen wala ñu valider leen xam nga yàggoon nañ di wax ni dafa am ay lenteur mais tay la mbir mi gëna takarnacé té kenn mënu ko accepter kenn mënu ko comprendre tok nañu ak madame le ministre de la fonction publique wax ko que situation ou avancement ou? seen validation yéen ni ngay koy traité mënul mais njiitu réew mi dafa mel ni joxe woon na sax instruction ngir ñu mën a toppatoo loolu mais njiitu réew mi bu dee joxe woon na ay instruction te respecté ko dafa war a jël say responsabilité te loolu il faut ñu wax ko te duñu yem nag ci wax ko instant bii nii bu ñu alerté gis ni dara changé wu ñu jël suñuy responsabilité mu nekkoon Saourou Sène secrétaire général SAEMS e ci micro euh, Pape Bess Dibala kon ni ngeen ko euh, seetloo ci euh, waxtaan wi ak moom Saourou Sène ñoom waa G7 sax mooy syndicat boobe ñu leen daal di dëgtal léegi seen kàddu yu njiit Saourou Sène di juróom-ñaari syndicat yi gën a peese ci bi ñuy natt keroog syndicat jàngalekat yi réew mi fas nañu yéene ñoom waa G7 tey ci suba amal conférence de presse ca dal bu waa CUSEMS ngir rek ni ñu ko waxee di ñaawlu loolee nepp tolluwaay yi yokkute leen lenn ci euh, matériel yi ñuy jëfandikoo ci wàllum tabax ci réew mi ciment beeg feer ba ca la tonu ciment bi junni yokk na ca moo waral ñii di consommateurs yi ca département Mbacké maire ba futt bu nu sañoon daal état bi njiitu réew mi ci boppam dakkal loole euh, ci wàllu yokkute gu nu gis ne du lu jaadu ca Mbàkke la nuy dem ànd ak soxna ma Diop ñu seetlu yokkute ci njëgu ciment bi ak fer bi fii ci diwaan bu Touba ak Mbàkke def ab wër ci bërëbu jaaykaay yi gën a am firnde ci lu nu waaye nag jaaykat yi ñu fa fekk nangu ñu yee yàbbi ci mbir mi dama la laajte ciment dafa yokk. waaw

tey jii dem na ba soixante douze mille à soixante dix mille li nga xam li mooy fer bi nga xam ne moo doon jar ay trente sept mille tey dem na ba quarante neuf mille ba cinquante mille loolu jéggi na dayoo. moom nag mu ngi oo ñi nga xam ne ñoo am daraja saafara lu ni mel ñu gën a xool jaay bi ak jënd bi fii ci diwaan bi ndax kat daa mel ni lu waay neex def. rencontré chef de service bu commerce fer ak ciment xam nga day prix yoo xam ni dañ leen a homologué wul kon loolu fi mu toll nii du tax itam commerçant yi di def lu leen neex. am na ñoo xam ne bii sax dañ doon den doon denc ciment bi denc ko ba nga xam ne fi mu nii kenn du ko gis su ko defee ñi am doole nag ñoom ñooy dem di jënd ciment bi loolu metti na metti boo xam ne bii vraiment jéggi na dayoo bu continuer fi mu nii li ma wóor mooy ciment ak euh, fer moom kenn dootu ko am fii ci diggante Touba ak Mbakke. ñoom association consommateurs yi nag ne noppi nañ ngir def seen kim kattan ba njëg gi delluwaat fa mu jóge woon Maxema Diop fii ci Touba RFM. jërëjëf soxna Maxema Casamance la nuy wutali ak ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wërëg jàmm gi foofee am na tëralin yeneen yoo xamante daal dañoo daal di ànd euh, te daal di ca euh, jukki euh, yi ci am solo ci wàllu yoon nuy jaarale wërëg jàmm gi muy ab document di téere ñu génnee duppee ko livret de dañu ci ànd ak soxna Seynabou Mal Cissé

loolu tamit day wane ne que loolu buñ ko defati wala nii lañ ko war a defaat mais daf ñuy wan ne tey jii am na lu bëri lu des défi yoo xam ne yii situation euh, société civile bi ak maanaam mi képp acteur bu nekk ci mbirum construction de la paix dafa war a jóg ci loolu loolu la ñuy wan waaw nañ ci rafet njort parce que xam nga yow soo amee euh, fooy taxaw fu dëgër pour nga mën a yootu leneen maanaam nga xam ne man mii kat keroog ba ma jëlee bant bi dama dóor rek bant bi damm da ngay xam ne léegi du bant ngay war a jël xëy na leneen ngay jël pour dóor pour loolu daal di daanu li nga soxla bu dee benn mango nga doon ajji wala dara donc da ngay xam ne léegi du bant bu ndaw bi ngay jël mais da jël bant bu gën a gudd sport que euh, Cheikh euh, Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay aladji Hadj Assane. dal di ko door rek walu football dellu ci jogante nga xamanteni ni mo amone ci stade la Dior bu Thiès diggante jaraf ak Satisfaction bu Tunisie ci walu coupe de la confédération la ndam demul ndam dikkul jaraf sax mën nañoo jàpp ne dañu recc ndax ci simili gu mujj ci gile jongante la ñu daal di duggal sen but égalisation kooko dugal nag moo di seen défenseur bi di Mamadou Sylla nettali geek Youssouf Bodian. Safarabi pour Giraffe, mu ngi 92e minute défenseur Rumbi di Mamadou Silla, daal di yéeg bal daal jaraaf daal di am match nul waaye mënoon na gagné match bi ci gis-gisu entraîneur di Cheikh Gueye. équipe adverse bi dafa ñëw pour rey pour wut benn point malheureusement benn point boo am na ko jaraaf ñëwoon pour def loo xamante ni mooy am ñetti poñ tey ji boo amee benn point arrêté li ñuy wax hémorragie bi tey doon loo xamante mën na am loo xamante moom la def si équipe bi ba nga xamante ni bi xam di nga dem Casamance di nga am benn capital de confiance boo fay mën a yóbbu. jaraaf ñu mëne ko ci 70e minute bi mu daal di fippu ngir dem jëli nul bi. Babacar Seck bokk ci défenseurs yi. joué nañ match bi ñu waroon joué jël nañ ci bi bo xamante ne peut-être mënoon na ñak mais bon mën naa peut-être erreur de concentration défensive la donc euh, lo xamni day day day arrivé la ci match quoi. bii bi ñu jël rek xëy peut-être motax sax xam nga réaction bi ñu am ñu ñëwaat xam nga jéem a redoubler waat ba ba égaliser quoi te je pense que ne peut-être ñu nekkoon nañ ci quoi nekkoon nañ ci xëy peut-être bii bi ñu jël tamit ñu motivé waat xam nga pour ñu mëna pour mu ñëw delu ci quoi say tas bi ñu gagné mooy seen prochain adversaire cest à que match vraiment déterminant nga am. waaw match boobu non mën naa ne match bu match bu metti la match buy metti la parce que il faut ñu concentré wu donc euh, dinañ ci liggéey ba de telle sorte que bu koku adversaire boobu ñëwee fii nii rek ñun mu mën a pour gagner ko coach ci ñetteelu bëccëg coupe de la CAF jaraaf dina dalal saritas bu Burkina Faso le 4 avril Salitas bu Burkina Faso googule moom démb dal dina am ndam ci diggante ak étoile sportive bu Sahel di beneen équipe bu Tunisie benn bal ci dara ci wàllu classement nag club saskien bu Tunis bu jaraaf daal di match ñu lal na ni ki démb ci Stade Lat Dior bu Thiès ñoom ñoo féetee ci place bu njëkk bi euh, ñaareel place bi beneen équipe bu Tunisie moo di étoile sportive bu Sahel euh, ñetteel place bi Salitas moo fa daal di nekk place bu mujj bi nag jaraaf moom moo fa daal di euh, féete ñu daal di wax ci leneen moo di. wàllu euh, ki di euh, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations euh, ñi nga xamantene nak ñu di équipe nationale yi fi toll ni ña nga koy waaja ndax ci wër mars bi dana am ñaari jogante yi nga xamantene ne danañ ko daldi amal Sénégal nak ci la daldi bok waye mu mu tombeek gannaaw bu ñu siwalee li nga xamantene modi sen liste li di club yu France di Ligue 1 beeg Ligue 2 bi daldi kon bok jël dogal ni dal duñu daldi libérer sen libéré jour yi nga xamantene dañ leen daldi convoquer ndax yoon jamono gi may na leen ko ndax mbass mi ba paré FIFA yi tamit daldi ci taxaw loolu nag ak mbir mi nga xamante ni xëy na lu muy indi ci ay euh, jafe-jafe ci équipe nationale yi dana bëri lool waaye lu ci mënti am rek euh, loolu nag euh, danañ jéem a xool nan lañ koy saafarawee loolu moo di kaddu Mayacine Mar bi nga xamante ni daal na comprendre équipe yooyu la rawatina moo di club français yi léegi nag faw rek ñu joyante mbir yi laata muy yéex ñu daal di ko déglu moom Mayacine Mar directeur technique national ci téléphone Babacar Fall. à chaque fois que a une euh, double confrontation, euh, y convoquer naturellement 25 à 26 joueurs. Parce que c'est vrai que euh, tu peux avoir des joueurs blessés en plein regroupement comme également aussi euh, à la dernière minute euh, mu am ben joueur pour absenté parce que effectivement le dernier match bi nga xam moy moy précédé euh, convocation m'a blessé donc loolu moy tax effectivement New York un peu à 25-26 mais c'est vrai que la fois dernière d'ailleurs dernier match yi ñu joué on avait perdu certains joueurs parce qu'on était obligé donc heureusement que les humains étaient en place et on en a pris deux ou trois pour compléter un peu le groupe parce que même de mais même pour les séances d'entraînement on a besoin d'avoir au moins au moins complet au moins 23, 23 euh, joueurs. Et c'est pourquoi, effectivement, euh, Nuit 25-26. Et comprendre un peu quand même la position des clubs. Parce que déjà, euh, joueur bi s'absente pour 10 jours, pour les deux matchs. Euh, Bukati 5 jours, ça fait 15 jours. Bon, banalement, le joueur perd au moins 3 à 4 matchs. Bon, tu comprends un peu quand même la l'amertume. Et surtout comme nous m'avons une équipe comme Metz, par exemple, s'il libère 9 joueurs titulaires, n'est-ce pas, qui vont jouer en Afrique, alors du coup, donc, vous voyez un peu, donc, son effectif est complètement de faillite wàññeeku quoi donc lolo lolo loolu expliqué quoi mais bon comme on dit aujourd'hui on est obligé donc de respecter donc le protocole euh, sanitaire initié par la FIFA bah, écoutez je pense que donc euh, demain l'impossible n'est tenu ñu dal di wax euh, ci lenen modi walu Ligue des champions ci Europe Niki ki démb lañu la ñoo liste équipe nga xam te ñoo di ci walu quart de finale modi Bayern Munich nga xam te modi équipe champion en titre ak Chelsea démb nag Bayern Munich ci seen match retour huitième de finale seen dëkk dañoo daal di am ndam ñaar ci benn seen diggante ak Lazio bu Rome Chelsea ba Edouard Mendy nekkoon ci camp yi ñoom dañoo daal di amaat ndam seen digg ak ñii di waa Atlético Madrid ñaari ball Euh, ci euh, euh, dara ñu daldi waxtane championnat bu Espagne itam walu jogante ci lu jëm ci deuxième journée di match retard Séville dafa ñi ñaari ci championnat bu Italie Serie A journée Torino Sassuolo Torino Moko Daldi Euh, ci euh, ñaar ci li jëm nag ci wàllu euh, coupe de France yi tamit amoon na jogante ni ki démb seen huitième de finale Paris Saint-Germain démb dal na am ndam du yaa ñett ci dara diggante mag ñi di wàllil El Hadj Assane yi ma fa gënoon fës ci xibaaru tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg ci xibaaru cosaan gi muy chronique culture bi ànd ak Anna Malinini ngi Njitureumi, Makisale, nuyu mbokk yi njiitu réew mi Macky Sall na dogal décoré euh, Thione sec, ñetti fan gannaaw bi mu génn àdduna dina conseil des ministres né jox distinction bi commandeur euh, ordre national du Lion ñu ngi ci euh, waxtaayu magal téméri atu euh, professeur euh, Amadou Mortar Mbow ñaari fan dangu ci des laata xew-xew bi bokku na ci activité yu ñu fas amal ap colloque international ci le professeur Souleymane Bachir Diagne way itam ben exposition bo xamante jéglé nañ ko dundin way itam jar jar ki fi ne directeur général bu UNESCO peintre bi di Alioune Badiane di commissaire général exposition boobule Aminata Ba mo ñu teewaloon ci euh, point de presse bu comité d'organisation bi amal ni ki Chingon euh, ci ci musée des civilisations noires. ñaar fukki fan ci yoru mars biñu deugmal di yemoo ko at ginnaaw bi kangam bi nek itam nitu ada, Amadou Mahtar mbou daal di gane ci aduna ay natangom ak ay njegeñaaleem nek di waajal ay exposition ci musée des civilisations noires ngir rek fexe ndaw ñi daal di xam nit bu ñuul bu ñëk nek directeur général bu UNESCO professeur Babacar Diop bokku ci commission exposition bi. dënd ak natal ak jib dañu bëgg delloo ci xelu nit ñi ay mbir yu bare jéem a itam yokk xam-xam gone yi gën a xam. mbir ni mu demee te mu mën leen sortal ay yeneen itam dinañ ko daal di fësal itam lu jëm rekk ci Amadou Makhtar Mbow Penn Mbow bokk ci commission scientifique bi ci séance bu njëkk bi man mii dinaa wax ci thème bi nga xamante ni ci Amadou Makhtar Mbow lay wax comme ni ngeen ko xamee rek Amadou Makhtar Mbow léppam nag mën nañ ko tënk ci benn fànn muy wàllum yar gi mi nga xamante ne da cee yàgg liggéey ñaareel thème bi nag day wax ci wàllum actualité maanaam xew-xew jamono comme ni ngeen koy jot na ngir ñu delloo lépp li nga xamante ni moom la fi maam yi bàyyi woon. jamonoy mbas mi digley kër docteur yi nag dinañ ko daal di jëfee ba tax na xew-xew yi yëpp dinañ ko daal di wane ci xarale yu yees yi. ci organisation yombul ñu bëgg fekkee bare nañu lu mbas mi indi ak contrainte am ak distanciation ju muy laaj ak yëpp tax na ba duñu mën a bari fii moyen moderne yu am léegi. danañu may képp ku bëgg seetaan dana ko def. xew-xew bi nag dinañ ko daal di wéyal ci weeru mai dinañ amal ay exposition ci université Amadou Mahtar Mbow naka noonu ca weeru juin ci université Cheikh Anta Diop bu fekkee ni rek mbas mi wàññeeku na ci biir réew mi. Euh, SODAV euh, moom dina tàmbale ni ki alxames ji euh, séddale carte membre yi bokk na ci bénéficiaires yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon na ca BSDA waaye itam. Adhérents you bees SODAV mbokk yi fi la ñu yem ci sen chronique culture di leen jaajëfal ci déglu bi dig daje Inshallah. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. touray cuuraay raktak bi rey yooyu. gamme Opalia. ak savon de Marseille créole.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 taabal ji aji ne ci laa gisee fital yi tiit laaj ko lii lan la ci la ko Ousmane Sonko tontoo ne ko su may génn te ànduma ak samay garde corps damay yore ay fital ndax may nit ki ñu gën a soxla ci réew mi may ki ñu gën a wër may ki ñuy gën di rëbb aji ne bi maasas bi jeexee mu bëgg ma tëddee ma bañ ne ko jànqalaa ci la ma forcé tëral ma ci suuf jël loxoom ci la gisee ne jànqalaa mu dévergé ma ak baaraamam jël huile massage bi ma ko doon massé sotti ma ko sëy ak man ci ginnaaw boobu mooy bu njëkk bi aji sar ne Ousmane Sonko tëddee na ko lu dul benn du ñaare li mu ko tëddee ëpp na fukki yoon am na ci bés xam ne ci biir jacuzzi bi la ma ko defee Ousmane Sonko dem na ba ko ne ko xale bu jigéen bu mel dell su ma la njëkkoon a xam yow lay ñaarale nee na ko it li am ci salon bi su ma ko mënoon a am ci samay jabar kon du ngeen ma gis journaliste bi ne wax la loolee leen ndax ca këram ibaadu gi mu fiy woote moo tax du fa mën a def yenn lii quotidien nañu maasekat bu jigéen bii di Adji Sarr jël na kàddu gi démb leeral viol ak menace de mort yi muy tumal Ousmane nan la demee nee na jànq la woon xale bu ndaw Ousmane Sonko moo njëkk ci moom ba mu ko violé ca la ñàkk ndawam Adji Sarr mu sol zone noiram muuro lu ñuul kukku toog di nit li photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk ko Quotidien yéenekaay bi nañu Adji Sarr nee na mi ngi baalu àq Sénégal gi yëpp ndax ba muy dem di porte ji plainte Ousmane Sonko li mu bëggoon moo di ñu tiital ko ngir mu bàyyi ko waaye soo xamoon ne yëf yi dina yegg fii yëpp kon dafay noppi waale aw naqaram toog mu ñaale ko kenn du ko dégg léegi nag comme mbir yi yegg na fii li am am na ba noppi nañu ci dem ba jeex lu ma yoon may ma jël Adji Sarr ne Ousmane Sonko newoon na ma lii ma lay def soo ko waxee kenn du la gëm dañu naan ab complot la rek mu ne it bés bu Ousmane Sonko taxawee waat ci alxuraanul karim ne musuma tëddee bu keroge man Adji Sarr dana retirer sama plainte sour soo nañu Adji Sarr dëkk na Ousmane Sonko nee na man waat na moom Ousmane Sonko na taxaw waat ci alxuraan ne musuma def dara mu ne it ba mu waxee ab patronam di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon suite boote ne ko dama ëmb li ko patron ba njëkk a wax moo di xanaa Ousmane Sonko moo la ëmbal loolee bettu ma mu ne sa ba ñu demee gendarmerie ci kanamu capitaine Touré la ko Ndeye Khady Ndiaye nee na yàq ëmb bi ne jël coca cola boole ko café ngir yàq ëmb bi yéenekaay bi na ci bàmmeelu ndeyam kittaa bu it ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ne musuta gis Macky Sall musu koo dégg xamu ko sax su Sonko waatee ne musuta séq ak man dara ma retiré sama plainte wax jooje Adji Sarr wax démb moom la journal Rewmi Quotidien xëye ci xët amu njëkk journal La Tribune moom it xëye xibaar bi ak kàddu yi ci xët amu njëkk bind ne Adji Sarr na Ousmane Sonko nee na su Ousmane Sonko waatee ne musuma tëdde bu boobaa dinaa tiimale ay fital dane Ousmane Sonko dafa tekki ay fitalam teg ko ci taabal ji bi ma bëggee tëdde mu bañ ci la ma joxañee fital ne ma ndax gis kon nag bu ñu ñaar ñett dégg tëddal ma tëdde la ngir mu bàyyi ma li ma wax moo di yaakaar nga ne occasion bu mel nii dinaa ko rate mu ne bi ma capitaine Touré laajee kan moo la ëmbal dama ne ko Ousmane Sonko moo ma ëmbal Adji Sarr mu ëmb nan la war a mel l'observateur nañu mi ngi nii ubbil yéenekaay bi boo xoolee page 6 bu journal bi danga fa gis photo Adji Sarr ak biiram ma nga fa sol ay yére yu yaatu ngir nëbb ëmb bi comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm bu baax di ko sant na ko noonu yéen ñiy teewlu saa su ne xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu njëkk moom Adji Sarr janoog taskatu xibaar yi bokk na ci ay kàddoom démb ne am na firnde ni Ousmane Sonko jote na ak moom euh, ngir plainte beeg ñoddi gi nag mu ne du def lu ni mel lu may moom Ousmane Sonko dafa jàpp ba seet waat ci alxuraanul karim ne mësuñu jote ci wàllu woowu ba tey jii Alaaji Malick moom dalal na président Ousmane Sonko la ñu gis ci wàllu politique mooy que ni réew mi askan wee ki soxlaam ngir ko faaw ñu tax taxaw jaamaarloo nguur gii fi ne gu makki Sall moo waral El Hadj Malick Gakou woote ab bennoo ci seen biir ñoom kujje politique gu Sénégal SAEMS yëglu syndicat jàngalekat ci wàllu moyen secondaire la li nuy ñaaw lu ñu ne mooy ay weer a ngi amul benn avancement wala intégration ci ay ñoñam moo waral ñuy ñaawlu liggéeyu ministre fonction publique di sàkku ak euh, taxaw ci nguur gi daan ci janoo tey jii sax ci kanam tuuti ñoom waa SAEMS ak taskatu xibaar yi ci dalu CUSEMS lay doon yokkute njëkk euh, ci lenn ci matériaux yi dem ci wàllum tabax ci réew mi ciment beeg feer bi ca la ca Mbàkke moo merloo consommateur yi fa junni bu tegu ci tonub simon bi ci réew moo xamante ni am na ay këri ciment yu bari ñett suma juumul du lu jaadu Abdou Thiam moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci wàllu service